mbokki Leewtoo ñu ngi leen nuyu baax a baax fii ci stade Iba Mar Diop tey saal ndeng a bëre bi nga xam ne moom mooy alman journée organisée par Idali Ñing le promoteur de la jeunesse et de l'espoir doon noonu ama doon ko ba léegi tey jiite production bi namoon nañ ko lool nuyu équipe Leewtoo bi yëpp yàgg maar ñu ngi nuyu bu baax Babacar ak Talla Ndiaye waaye Rose Lafleur Ndeye Coumba Fall Aïcha Faye nuyu na ñëpp de waraangi ne anna xaadim anta booraangi ne aa ah, waajaangi ne booraangi ne kii bëggul urus bëggul xaalis faalewul na gëg gileema kuk safam lay may naari gat ay waay mbar me bari doole yaay moo tax mu baax ay waay bu leen ma yëngal waay bu leen ma yëngal waay bari wa déranger la yoo ma fiya si faa bi bari doole loolu ay waay bu leen ma yëngal waaw bu leen ma yëngal waay yow samba yande ngan yaay ma fiya si faa bi yéena bari doole lool moo tax mu baax yaakaar attention yaakaar door na booy sila fayu teel nañ ci de xale yi yaakaar ak Boy Sylla eh, ay ak Boy Sylla ndax Boy Sylla day tas yaakaar wala yaakaar ah attention Boy Sylla door songo nañu ñu ngay xeex Boy Sylla ngay xeex ñu ngay xeex jàppante nañu jàppante nañu yaakaar ak Boy Sylla yaakaar ak Boy Sylla yaakaar xam sa cosaan Boy Sylla écurie Bosco Sow ku ne jàpp nga sa ngembal morom ah Boy Sylla ngay door ca suuf Boy ngay door mu ngay door ci suuf mu ngay door ci suuf ah yaakaar ak Boy Sylla Boy Sylla ngay yootu ngemb la ca ginnaaw Boy Sylla ngay yootu ngemb la ca ginnaaw jàpp bi baaxagul loxol gauche am bi. attention moom mooy wéyale war na ko ndomba daan na ko. Oh, Boy Sylla daan na yaakaar toog ci kawam daan na ko daan na ko daan na ko toog ci kawam yàgg maa xale bi waane na. laa ilaha illallah. bi rafet na. jël bi rafet na Pip ak Boy ak Billy Boy mu ngay doorante Pip. Africa mu koy ngat ngat ba bokkul Africa Pip mooy xeex ba metti na Billy Boy ni woon ginnaaw Africa Pip mu ngi doorante ñu ngay xeex Africa Pip mu koy door mu koy topp di door Billy Boy daan nanu la eh Africa Africa Pip bu HLM daan na Billy bu bos ko sow la ilaha illallah combat ba metti na gaaw yàgg Valeurs Africa def na waaye Billy Boy a ngi toog mu nga toog moom Billy Boy dara bi dafa mobiliser HLM bi yëpp ndeysaan oh mu ngi noonu demoo ngeen lu mu xoolal gaaw na Koy Njaay 72 arbitre baa nu woon ginnaaw feete sunu càmmoñ Ndiaye Dollé feete suñu ndeyjoor laaj naa leen ndax jaay doole arbitre sak jaay doole sifflé sak jaay doole sifflé sak jaay suñu ndeyjoor jaay doole lu woon ginnaaw sifflé sak jaay doole yàgg <laughs> Tibles ak Njaay doole ñu ngi nattante ñu ngi lewtoo Tibles ak Njaay doole moytul Njaay doole bu ko fii du baax ci moom na Tibles jóg na taxawal waaw jóg na taxaw ñu ngay xeex ci suuf mu ngay ci suuf Senghor yaa ngay wat Tibles sukk na sukk na ba lu nar attention fii boo na reprise Madou la parce que toog jogaat na Tibbes xeex na mu ngay door ci suuf jaay doole door na mu rëpp et eh, est dafa mel ni dafa mel ni Tibbes a ngay naaj ci loolu la ma xaw a niróol si yàgg maar waaye arbitre gisagu ko su ma juumul na benn bëtu am ba day kawo dafay kawo jël na ko mu mboot ko mu bañ ah, ah attention arbitre sifflé na bul dóor waaw waaw gisu ko woon gisul gaañu gaañu ba yàgg maar yaa ci gis ndeysaan xoolal xale bi ñandul de médecin ba koy xool médecin ba koy xool ndeysaan mu ngi koy defal soins médicaux yi ndeysaan ay lamb waay entraîneur baa ngi wax ak moom nee ko xoolal la def sàmm say tànk Tip Less ak Jaay Doole Jaay Doole mu nga bëgg xeex da koo bëgg a gaañaat da teg fam ko tegoon est-ce que du lay opté mu ngay defal sengoor ya moom jaay doole moo nu woon ginnaaw tibles jàkkaarloog nun ñu ngi tomb ki amateur yi tibles ak jaay doole ñamante kenn ku xam sa morom la muy sax moo tax songo du gaawe nuñ ko foogee gis nga xeex ba demaat nañ ci xeex ba ndax dina arrangé ñaari mbëri ah yaay doole jël na tànk jël na tànk ba wañ na ko wañ na ko tourné ak moom tourné na ak moom ay génn na ca waay wala génn gu mu koy jéem a mu bañ dugal na tànk ba eh ah tibles mi waay yaay doole nga koy pousse pour mu génn ah ndeysaan bañ na lu mu les nii gëm càmmoñ la jiitaloon léegi tourné ko def ko ndeyjoor jiital tànk ndeyjoor ñu xool lim ci jublu ndax dina soppi bëre bi Faiblesse ak jaay doole Faiblesse ak jaay doole ah arbitre sifflé na nee na leen ñu bëre ci diggu géew Blaise am nga benn avertissement nee na ko taxawal na Tic Blaise ak Ndiaye Dollé Tic Blaise ak Ndiaye Dollé Tic ak Ndiaye Dollé suñu càmmoñ Tic suñu ndeyjoor Tic Blaise ak Ndiaye Dollé ñu ngi lewtoo tegante nañu jaay doole mi daf la contrôlé dafa jaay doole dooraat na waaye dalul Tibles ak jaay doole attention ah xeexaat nañu jàpp na ci tànk ba ndax bii baa dina la na ci na mu ngi koy waay Tibles waay faq na ko mu rëb ñetti ya ñetti jël amagul war na ko ndombe penalty woy penalty ba nañu ko ah jaay doole daan na ko daan nañ tibles ndeysaan xoolal ma tibles mu nga jaay doole ngay xiirtu mu ngay jooy di sumi gàllaaj waaye yàgg maar effort ya muy def bu jël bi daw galul woon gaaw biram yi jaay doole mën na bëri parce que day song ci kaw à chaque fois day dóor ci kaw sëgg jël tànk bi. waaw am na ko ñaari yoon deuxième fois bi ko daan. dafa liir combat bi. ndeysaan lay euh, nekk euh, directeur Africa Pub. waaw mais tey dañoo ñëw euh, seetaan làmb ànd ak suñu xarit suñu frère Amadia. gunge ko ci làmb bi làmb bi mu def tey en même temps ñu amoon fi mbër buy bëre bu tudd Africa boo xamante ni suñu suñu entreprise foofu lay liggéeye ñu ànd ak suñu mbër ñëw ànd ak Amadia ñëw pour pour euh, fekkee fête bi. waaw ngeen ànd Africa Pip mu daan. waaw waaw ñu ànd ak Africa Pip mu daan muy muy mu daan jël bu rëy waaw muy vraiment euh, lu ñu neex suñu xol sedd si. Euh, kontaan nañ trop si booy bi ni mu bëree ak euh, victoire bi mu am waaw ñu ngi koy ñaanal nag victoire bi jikko mu amee ay victoire victoire dem ba nekk roi des arènes loolu lañ koy ñaanal bii mooy premier combat mu ñëw ñu waxtaan ci ñu jéem a xool lan lañ koy liggéeyee pour pour benn durée indéterminée quoi man ak promoteur bi merci nañ ay ca ñett numéro 2 moo yor ngemb lu weex ay ngi ne ana xaadim anta booraa ngi ne aa ah, waajaa ngi ne booraa ngi ne kii bëggul urus bëggul xaalis faalewul na gëg gilee ma kuk safam lay may naari gat ay waay mbar me bari doole yaay moo tax mu baax ay waay bu leen ma yëngal waay bu leen ma yëngal waay waa déranger lay woo mafia fi faa bi bari doole lool ay waay bu leen ma yëngal waaw bu leen ma yëngal waay yow samba yande ngan yaaye ma yangal waay bu leen ma yangal mafia si bari doole lool moo tax mu baax tax mu baax ay waay ma yangal waay bu ma yangal waay yéena bari moo tax mu baax loolu ay waay ma yëngal waaw bu ma yëngal waay waa sant yàlla rek waa kooku sama genn wàll moom maak moom rek dimension promoteur sama frère la sama genn wàll la sama lépp yaddaali amaja awma seen fay maa ngi naan yàlla mi am fay yàlla na leen fayal boppam waa kii sama soxna la fay naa leen. kontaan nga naa trop ci bés bi. yaa ngi ànd ak monsieur ci li nga xam ne dañ ko koo xamee moom muy organiser yu mel nii ay nit di ñëw di ko fekk si tey ñu tuddee ko bés bi. waaw rek ci liñ ko yëgal si combat bi franchement kontaan nañ si trop sax di ñaan yàlla mu gën a yokk làmb ji innové jëm si kanam incha allah rabi merci beaucoup. moom promoteur yi ci seen biir. mag la. sama lépp la man naa ne làmb ji man moo fi gën nekk sama mbokk rawat na mu tudd ngéwal production man ma tudd ngéwal gi production kon buñ ko tuddee làmb ñun tuddewuñ ko ko ñun lan ko ñun promoteur yëpp lan ko tuddee lii amaja def lu nu neex la lu nu ñor la te moom it làmb ji da koo ñor parce que boo demee këram lu na rey na ko ganal ay ganam kon buñ ko tuddee làmb ji toll nii moom dañ koo war a tuddee buñ ko tuddee dañ koo war a tuddee sunu mbokk la sunu lépp la yal na ko yàlla defal jàmm solidarité bi dafa gën a feeñ te xam nga moom sëñ Mor mi dafa nekk nit koo xam ni ñu bari xamuñu ko mais nit ku yàlla baaxal la yàlla mi ma tim xam na loolu man promoteur la mais day sama mag sës ci man rek yaa ngi dégg ñu bokk doon ay mbokk yoo xam ne danoo sës maak moom le technicien a ah, bébé Saloum bébé waa mais bébé teewaay bi lu ko waral waaw sama papa lañ tuddee bis rek ma ñëw ànd ak moom sëñ Mor sama papa non bii moom original bi la bokkul ak foo yi mun naa am foo yi wax mais man moom ah ku ma génnee ci moor mu jeex ku ma ku génne sëñ Mor ci man ma jeex moo tax ma xam yoonu bitim réew nu ma mel moom la li waxuma pour dara nag sama yaay avant moo gaañu moo ma jël may ma Serigne Mor. waaw ah, mais Ama Dia teewaay bi moom ay ay ay personnage de marque lañ fi gis. waaw ah, sant yàlla rek toog si ginnaaw ñi ngi production rek mu nekk sama grand boo xam ne seetaanuma benn yoon wax dëgg yàlla. lépp loo xam ne bëgg naa ko rek def na ko si kàttanu yàlla mais ñi ngi dama la xamal man làmb du ma si gan yow xam nga ne làmb du ma si gan man dama tarbiwu làmb kon boog ma tey bis bi jow mu ma daal Boy Ndiaye ñu ngi lay maa lay fay bu baax Boy Ndiaye ki nga waroon bëreel ñëwul waaw dafa daw ma xam lu muy daw ñu lay xale lañ nekk ci yoon di ne di liggéey jaru muy daw ay amoon lañ mënoon na ñëw fii ñu foo rek mooy loolu dafa daw nga jàpp dafa daw dafa daw wexet ndax waa gars bi ñëpp a ngi ne toog ne leen daa daw est-ce que dara ko daa daw ñëw na ba si làmb daw daa ñëw bu fii daw. mais lan lay daw yow lay daw wala nu mu demee. moom ma jaaxal ñu ay xale nag di entraîné quatre-vingt-quinze la juddu xale bu ndaw laa di entraîné fii na gars yi ñëw ñu foo dañuy foo rek. mais est-ce que gisul nga suur bu ndaw bu dee dafa sant yàlla rek ñun moom ay xale nag di entraîné mooy nekk si yoon. dafa daw waxit dafa nam ay tànkam di daw di dem. waaw mais léegi nan ngay def. mais du ma def non instant yii mënuñu ko wax c'est trop tard mais yàlla rek suñu victoire lañuy jox jox nañu suñu victoire instant yii ñuy fere suñu victoire maa ngi sant waa Guédiawaye yëpp ñëpp ma jàppale. daje sax bokk benn chef mën nañoo daje dara mën nañoo daje rajo mën nañoo daje sama promoteur yaa ngi nii dara ba dara yéena am jot lool Muy la Magay ligay. Siya pa, kurang karmasang layo. yàlla tere yaa sa DG seen. yaa ngi leen léegi am problème. kenn nga jël moom nga def ko def. dañoo am bon jour ñu bokk ak suñu bopp. kon na rafet rek. ñooñu ñu xasee rek ñu jëm pour ñu toog xam ko. kenn nga jël moom nga def ko def. Campeão! Thiès Junior Cheikh Baye Malick Sadio attention xale teel nañu xeex teel nañu xeex Cheikh Baye Malick Sadio Sadio Junior Cheikh Baye Fall ñu ngay door kawo mbaa du am attention kawo mbaa du am eh bi xeex laxasu na ko ah remplacé na ko ndeysaan daan na ko la ilaha illallah oho laa ilaaha illallaah jël ba doy na waar yàgg maar même jël bi daa daw ko mu xëccu ña wàccu ci suuf Cheikh sin sama ñaari waajur san sama baay billaahi suba dama woo di ma ñaanal bay jooy billaahi waa mais adversaire seen combat dafa metti xaw na laa gaañ de kii xam naa ne ragal la wër na alxuraanu karim ban tase di wër laa ko bu sublee da nga génn saaku wala ma daan billaahi terminé ci xeex waaw lool mën naa ne ba tey garaawut ay xale maa ngi sant yàlla baax di sant waa Kasoor Kasoor gi ma déparé Omo seen fay góor ak jigéen mag ak ndaw. billaay Pape sama garaa bu baax maa koy sant Omo fayam Bada Diouf a ah, waa Kasoor Omo seen fay ñoom Mariama xale jigéen doo dog aña ñoom Ndeye Ñama ñoom Rama. ziar naa ñëpp sal bu ndaw père Omo fayam barke alxuraanu karim kii sama garaala billaahi walaahi ki xamala laa ko mën a fayee ñi ko daan da nga bëree daan moom mu daanu yes waaw dama billaahi walaahi combat bi lu la ci daj ba mu desee pendant une semaine bi ma jox combat combat bi ci une semaine laa ko jël mu ne bul xëy bul def dara def entraîné moom laa sant ku ma làmb booleel rek waaw samay morom mais sama karaay bii moom ku ko daan xamal ne maa sa kaw billaahi walaahi sël bu ndaw dégg nga li ma la wax lépp la doole may sangu day taxaw sama wet sax maa ngi sant sama sëriñ nag di sant waa Guy Ndiaye Bawol aw ma seen fay waa Guy Ndiaye waa Dagga ah waa Ndiageen su daal dafay juum Ablaye maa koy sant bu baax aw ma fayam di sant Jurbel dëkk bu naan Ndiageen Jooreel maa leen sant bu baax ci sama xam na bu baax ñoo bokk benn dëkk Baye Gora sama na tàkk kon suñu papa maa leen fay dama na sama kës may teg lu metti may dégg lu ne barki alxuraan karim mu jàpp taw bàyyi kii moo ma def mbër dama naa ba bàyyi làmb moom indiwaat si làmb jëmm ji sama nee ba nit yi dama toppaat si làmb jëmm ji moo dama naa ba pare si làmb ñëpp fàtte ma kii fayam moo xam lépp lu mu bëgg si xolam moom suñu dakay da suñu dakay da nekk ko sama sam papa la suñu sam papa la ak fëgal a deux maa ngi koy sant bu baax ak Sadio Diko ñoo xam li ñu bëgg seen àdduna yàlla na ko borom kenn si Fela laay commencé ba Pape Baye a ak sama meeru koñ yi ñoom tànday si ñoom yaa leena këram laay sangoo heure bu nekk ma fay dugg di di yàq ndoxam ma dara du ma si topp si yaay guma mooy xëpp ci di gërëm sama waa dëkk waa Morona di woon mais roon waroo nan nga nekk tii asante laa xabri so sama kooxaroon maari wanaat sama kooxaroon ma dëkk xëy dàgg sama kooxaroon laa xabri su di sant paate ak grand Demba ak Laay Dakar dañoo maanaam sant leen gërëm. ginnaaw ñagu 3 moo jàkkaarloog nun ñagu 3 noiro noiro attention noiro boo génnee ñu avertir la ah daan na ko la ilaha illallah da ko bet da ko bet la ilaha illallah da ko bet daw na xoolal gaynde ga la muy def gaynde ga perangu na xele baa daw di wër géew gi ah bon après. waaye nag góor gi góor gi danga nga naan encore ci Modou Lo Eumeu Sène muy deuxième fois bi déjà Modou Lo à trois points ndax moo daanoon am déet mooy wut dara moo daanoon muy revanche te favori amul ku ci ne bërekat nga te am nga loo mën te ku ci ne bés bi da jaral xam nga maari dañ taali ku ci daanu day metti ci yow bu Modou Lo daanoo day metti ci moom rawatina Eumeu Sène mi nga xam ne mooy yor roi des donc combat la de ku wax mën nga foog mu jeexe combat bi dina am xeex bu metti nag mais bëre bëre lay jeexe waaw parce que Modou Lo doo ko bàyyi mu réfléchir te Eumeu Sène mënul xaar donc combat la li may bañ rek mooy euh, pub li tubaab di wax publicité mensongère ñëw à la télé dans les médias su ma la jàppee nii su ma la jàppee nële amateurs yi ñëw fay seen xaalis yow boobu àq sax ni ko nut mën a gàddoo ah ngay ñëw di yagar yagar yi ba ngoon jot mais loolu day yàq lamb encore bakkaar la xaalis boobu ñu lay fay lewul ah, lewul quoi dem naa ah. bëgg wax foofu ah? li nga gis ma gis ko ki ñëpp gisandoo ko mooy bëre façon bëre yu ñaaw yi ñuy bëre xam nga li ma la wax ah voilà. bu ma bu ma amee lu may wax Boy Niang laa koy wax Lac de Guiers maga na ko huit ans c'est lui qui cherchait Lac de Guiers ba ñu jox ko ko mais euh, d'après moi quantité force bi mu waroon am amu ko moo tax bi mu ko jéemee xar géppeñ du mën a dem parce que pied droit la jiital moo tax Lac dafa rocc loxo bi rek mu dem terre donc entraînement bi ci war amu ko waaw Japon boobu mu demoon lan la fa jëlee indi woo judo indi woo xeex indi woo dara looy wut Japon boole koog indi fi tubaab ci biir géew bi mais lan la la jariñ mbër da ngay entraîner ci diin yi bëre ci mbappat yi bëre ci tefes ñun loolu la ñu xam loolu la xam mais donc Boy Niang dese na ko doole quoi ak audace parce que mbër mu ndaw bu laajee bu mag mbër mu ndaw mi moo war a ñëw xaru parce que tey bu daanoon dina neex de xam nga looy dégg ay ca Balla Gaye Boy Euh, dafa def benn sorti bi wax ni Balla Gaye na ñëw laa naan ci kaasu fonde bi te ñu ci ëpp ni naan xama na euh, ndax ndax war na dem ci Balla Gaye Balla Gaye soxlawul fonde laax bu dëgër la soxla fi mu nekk ni làmp xam nga làmb dafa am ay bu daanoon lak mooy moom làmb ji mais fi mu ne nii boo fayoon Balla Gaye cent milliards soxlawu ko xam nga léegi qu'est-ce qui va les regrets et consorts là foofu la ñuy mujje te ça sera très dangereux pour moom ñoom muy Ama Baldé genre yooyu yëpp bu rëg-rëg génnee ñu xam ne mbër am na nañ entraîné bëre sérieux xaalis bi ñuy yàq bitim réew xaj na seen waajur yi quoi tu es amené un tubaab tu es au Japon tu es en Espagne ah nga ñëw tu n'as rien fait man loolu xaw ma ko gi si Dieng ndënd mi nee naa mbaru basketteur yi na ko boo gis yi jeengi noonu ko ko ñeme na sax gis nga def noonu moom tam Saal Ndengler moonu woon ginnaaw almami jàkkaarloog ñun mbokki Gunjaan mbokki Bawol Saal Ndengler almami almami Kër Masar Mbolo Saal Ndengler écurie Bawol Kër Masar kenn nooyeetul ne teg lamp yi takk na ah doorante nañu waaye dalagul Sandengler mu ngi koy jéem a attaqué mu ngi koy jege door na ca kaw mu dal Sandengler ah Almami fayu na Sandengler jël na ko jël na ko Almami bañ na takk na ko ah caxabal ba dugg na Sandengler daan na Almami Sandengler daan na Almami ay waay Fallou Ngom laa ilaaha illallaah Almami ngi noonu Sandengler liggéey bi lii rek moo tax ndam rek lañ soxla ñu ngi sant waa Bawol ñëpp di sant waa Ndingler di sant supporters yi di sant waa Salba Binta maa koy sant di ko gërëm di sant li nag alaaji di sant waa Medina yëpp di sant mbokk yëpp mbër yëpp su ma limee damay juum barke Serigne Touba. sawet mbay waaw boo gisee loolu rek xam ne yëpp nañ ma tey barke Serigne Touba boo gisee ni ma ñëwee nga xam ne tey bés bi sama bés la bilaay walaay. wala amati na ndam waaw amati nañ ko yàlla na continuer di sant ci lew pour sa bawol bi tafaatin ba ci booy yanda yàlla nañ jëm ko ca kanam di sant kéwal Omar Thiayaay maa koy sant jame gaayab waaw mbokki Leewtoo yéen a ko gisandoo Zal Ndingler daan na Almami bu Kër Massar Almami il n'est pas démérité ñu ngi ñaanal Almami boo amatee combat yàlla may ko ndam waaye Zal Ndingler félicitation lii la leen i daal yi ñu ngi indiloon ñi ngi lamb yàgg maar sama cameraman bu ñaawul boobu ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen wax ci beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf